Mohamed Ayib Daffé euh, euh, député euh, le candidat Ousmane Sonko moo ma yebal nommé ma comme mandataire et coordinateur national du parrainage sant ma ma ñëw déposel ko ay notification am pour retirer ko ay fiche de parenage pour mu mën a bokk ci élection présidentielle du 25 février 2024 comme citoyen yëpp te yaakaar naa ni moom depuis le 14 février investir nañ ko parti Pastef investir nañ ko mais gis nañu pexe nguur gi yëpp yu ñu lal pour jéem ko téye de manière arbitraire et illégale tëj ko jël parti woom dissoudre ko mais pexe yooyu yëpp terewul tey ñu ñëw indi suñuy document au complet notification yoo xam ne mooy wane ni Ousmane Sonko ah candidature am valable na ñu ñëw présenter ko fii direction générale des élections mais ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko soxlewul parrainage citoyen naa des élus députés yu mu yor rek ah mun nañ tax mu bokk mun na tax ñooñu mun nañu na ñaari candidat léegi bu ñu ñëwee présenter document yi ñoom ñu xool document yi gis ne document yi amul ci benn problème document yi mot na sëkk amul benn kii ñu laaj ma sama identité ma présenté sama identité ñu gis ni looloo nekk ci document yi ñu vérifier signature ñu xam ne signature yu baax la yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko signé yebal ñu luñ ñu tontu ñu ne ah ñun de mënuñu leen jox fiche de parrainage ñu ne lu tax mënoo leen ñu jox fiche de parrainage ñu ne noo Ousmane Sonko du électeur ñu laaj leen fuñ ko bind ban document ngeen yor ban acte ngeen gi ban do ana ndogal gi présenté ñu leen ko. ñu ne ah non non loolu mënuñu leen ko présenter mais ay instruction nañu jot ndigal nañu jot bu jógee ci kaw wàcc si ñun te ñun administration la il faut ñu appliquer ko muy doon lu garaaw loo xam ne Sénégal tey gis nañ ni élection yi ñii ñu jëm bëgguñu si mu leer bëgguñu mu jaar si yoon parce que soo jëlee benn candidat ponkal bu mel ni Ousmane Sonko nga ne da génnee ci processus électoral bi te amul dara lu ko tere mu bokk yaakaar naa ni yow bëggoo élection am Sénégal élection yu jaar yoon am Sénégal te ñoo ñu koy def nag ah instruction yooyu ñu koy joxe moo ngi jóge ci président de la République Macky Sall ñëpp xam nañ direction générale des élections le ministre de l'intérieur Antoine Diome moom moo ko yilif gis nañu lu ministre de la justice wax gis nañu président de la République Macky Sall lu mu wax te xam nañu candidat au pouvoir bi moom mooy premier ministre moo jiite gouvernement donc mu doon loo xam ne concurrence déloyale la kumba am ndey kumba am ndel amul ndey administration bi tëddeewul njaaxaanaay lii nag ñun duñ ko seetaan duñ ko nangu ñoo ngi rassurer sénégalais yëpp ñoo ngi rassurer citoyens yi di rassurer patriotes yi ak ñëpp ñoo xam ne dañoo bëgg démocratie ñëpp ñoo xam ne ay républicain nañu que incha allah Ousmane Sonko mooy des suñu il restera notre candidat parce que coalition moo ko porté une coalition de partis politiques légalement ay sénégalais. ànd ci ay millions de sénégalais ànd ci top ci candidature am am yaakaar ci moom am espoir ci moom te du ñu seetaan espoir boobu ñu rey ko incha allah lépp lu ñu war a def pour Ousmane Sonko nekk candidat nañ ko def parce que ñoo ngi rappeler sénégalais yi que candidat dépôt yi moo ngi commencé le 11 décembre di jeex le 26 décembre tey ñoo ngi mois de fin mois de septembre donc lu des bëri na mais ñun nañu def lu mu gën a gaaw gaaw ñu saisir la justice pour am gain de cause annuler forfaiture yii ñu fi def loo xam ne du dëgg du yoon arbitraire la duñ ko seetaan ñu ñu naan dañuy jël kenn koo xam ne mbër mu toll ni Ousmane Sonko gis ay ñoo xam ne du ma ne tekki dara mais quand seen poids kenn mësu ko xam ci espace politique bi même ñoom seen candidat mësul gagné dara Ousmane Sonko c'est un maire il a été député ah il a gagné des élections législatives il a gagné des élections municipales na ñu bàyyi sénégalais yi tànn ñun daal loolu mooy suñu kàddu ñoo ngi rassurer sénégalais yi ñoo ngi rassurer patriotes ñoo ngi rassurer citoyens du ñu dellu ginnaaw du ñu bàyyi ma ne ñun euh, man Ousmane Sonko moo ma yebal waxu Ousmane Sonko rek laa fiy wax parce que mooy